wa nika ka ni ka togg yi ñun dañ naan togg añ di togg reer dañ nan togg añ añ bi comme ça ni ma la ko waxee rek manam dañuy jël saaku ceeb bi la jël rek sotti ko saaku ceeb bi la jël dañ koy xaj 50 kilo bi dañ koy xaj def ko si plat yi jox ko gaay ñu tan xam nga gaay am na ñoo xam ñu ngi togg mais dañ koy tassare suñu plat yu bari bari jox leen gaay ku ne ku ne tan ñu jël saaku soble bi ñu sotti ko si bool yi yor nañ ay paaka jox gaay gaay tan soble gaay gaay fejar soble ci su ko defé ñun tek suñu ñaar ci ñi def fi ñànkadang bi ñi def fi sauce bi non lay mun paré ñu daal di séddale bàyyi plat ñu continuer yow da ngay tok fi nga toog jox rek nga jallalé bu gaay yi paré ñu jël sa raxas mu raxasee pare yëkkatiwaat kal bi ci souf dugal fa cin yi dugalaat fa bol yépp bayyi bu ndané mbo guddi jot mu xam sa lan nan baxal mu xam sa lan ni baxal ni def ci suukar def ci kopp amoon nañ kopp yu café yu bari kenn ku ne jox la ensuite bu ndané mo ngone sax da nan tangal café da nan tangal café bu ndan xey suba ni suba tel bu ñu yeewoo gars yi dañ daan dóor ñun sur gal dañuy xey suba gaay wacce kamil bi bu ñu wàccee kaamil pare murid euh, kii kuréel fa xasida tijaan yi zikkar fa ñaseen yi tamit jàng fa seeni xasida ñett ñun ñëpp doon def bu nee ba ngoon ay boori 5 heures Baye Fall yi sikkar euh, fa ñun suñ kii suñ capitaine yi ay Baye Fall la moom gars yi sikkar ñu defar kafe yooyu yëpp amoon na suñu gaal gi mais bi ñu demee ba àgg jéggi siraan nag bi ñu rombee Maroc mooy bi ñuy dugg si géeju Europe géeju Espagne mooy fu danger bi foofu nag lan bàyyee togg moom reer na boobu ma tëlatuñ ko boobu moom am nañ fa deux jours yoo xam ne si moom oho foofa ñu ngi fa àgg benn vendredi côté cinq heures metti na trop booba gars yi kuuraltun jàngatun xasaay di talatun dara gars yëpp wàcc ci biir gaal gi benn capitaine bi rek moo des ci kaw fa lan falan bàyyi nag togg reer ndax booba géej gi yëngutu na gaal gi day dóor di dala dala dala dal di dal ba nga ba ñëpp yaakaar ñu dañuy faatu xam nga lan moo tax gars yi boo leen joxee discours yi mais discours dafa am ñu ko mën a jël ak ñu ko dul jël ndax booyu bëree bëri ngi dem nan si gaal yi nii Euh, ren ji am na ñoo xam ne demoon nan am na ñoo xam ne demuñu mais ñi demoon rëcc si gaal yi nekk foofu amee teraanga ñoom ñoo leen ko yóbbee moo tax ñuy dem boo leen joxee discours yi am na ñu koy jël am ñu koy mais gaal dafa danger man xam naa si dara gaal dafa danger gaal moom boo si duggee gëmal defal sa bopp ne yow war ngaa mën a faatu bis bu ne nag chaque seconde boo amee ci géej gi xamal ne man ngaa war a mën a faatu ndax mool yi dan la koy expliquer fa ne egg si biir ndox bu fa gaal xaree ñëppay faatu ñun ñëppay dee loolu dañ la expliquer kon da ngay dem rek tenter chance nga egg mbala nga bañ a egg loolu mooy njëkk a danger ci géej gi mais problème bi mooy Sénégal dafa am lu fi nekk lu gën a bëri problème bi parents yi tamit dañ ciy joué xëy na ab boo jëlee affaire gouvernement bi xëy na xëy na gars yi ñu ngi daan seen doole foo ne maire Dakar gars yi dañuy xuus ñi di liggéey comprendre dem fenn léeg nga dégg ñu ne marchand ambulant génn na leen fii léeg-léeg nga dégg jëlee leen foofu stress boobu mooy topp booy lu gën a demee si famille nga dégg ñoo waajur yo xam duñ comprendre dañ naan yow doo tekki dara sa morom mi barki dem moo fi def li xam nga moo fi def li lolou di moy gëna pousser xalé yi mais li ma lay conseillé mooy danger la geej gi moom danger la à 100 man tanté nako dem na ba egg ci jamm bima ma ci dama non du ma si duggati sama mbokk du ci duggati ba fim mu toll nii du ma nangu sama benn mbokk dugg ci geej ndax xam naa danger ci nek man mo mën mos naa du question dere lañuy lañ lañuy testé motax ñu génn la dédét manam so aggé Espagne am nga fa séjour 45 jours 45 jours nga am séjour nag ci nga wara mëna dugg ci biir Espagne bala ci la la war a mën a delloosi ñun suñ bi li ko waraloon li waraloon suñ suñu délo xeyna dem na ba am affaire gouvernement dugg si xeyna affaire gouvernement mo si dugg Abdoulaye Wade am lum nangu ndax 2006 la won Abdoulaye Wade am lum signé gaay gaay wañi ñu depp ñu komas lool lol la nekkon mais au commencement lool amu fa tuba bi li lay jëk def bo diké da ngay bind sa tour ak ban dëkk nga joggé même bo dé Sénégal ñu xamné Sénégal bo bindé Ivoirien seen yoon nekku sa ñoom bindal fi nga bëgg a bind mais nag de temps que soo bindee ivoirien nga ensuite bala nga bind nga ne réfugié nga jooye nga dëkk boo am na xeex am na yooyu comprendre nga temps yooyu Côte amoon na ay problème dëkk yi am yu bëri booy ko bindoon teewu da am enquête nag dinañ jëli ab ivoirien boo xam day ñëw di di la enquête tous les jours maanaam trois jours yu ne mbala quatre jour dina ñëw di la enquête di la laaj fan nga dëkk ci Côte d'Ivoire lan moo xew dana la koy laaj boo demee dëkk boobu xamoo ko di foofu mën na la saa wàccate dana lay delloosi mais nag ñun ñu bëri dañoo defoon Sénégal te instant boobu wàññi amul ndax instant boobu li tax sénégalais neexoon fa tubaab yi sax dañu ko doon wax danax yéen sénégalais amu leen benn problème ndax yéen a ngi si biir dëkk bi di liggéey daan seen doole amul benn euh, problème boo xam ne yéen yéen a koy dugg dugal biir Espagne moo tax 300 Sénégal lañ doon libéré par jour jamono yooyu 300 Sénégal lañ doon libéré par jour jël yeneen 50 nationalité maanaam nationalité Gambien yi Ivoirien yi yooyu 50 lañ ci tànn jël mais Sénégalais 300 lañ ci doon jël par jour dinu libéré mu gaaw ba dee camp bi neex gaa yi di sikkar si guddi gi tubaab bi di photo ba benn instant daal la fa ñëw jékki-jékki rek dug ñëw ñu ne dañuy enquête gaa yi bañ lu xew ñu ne noonu dañ leen di ndax am na ñoo xam ne dañu jógee Sénégal seen yaay dafa na ñoo xam leen joxoon ñu toj bitigu jàmbur indi na ñoo xam ne si dañoo bokkoon ci nangam nangam loolu daal lan nu layal kaay leen ñu enquête leen képp koo xam ne si amoo benn problème nga jógee Sénégal yaa paas sa bopp instant boobu am na ñoo xam ne njëkkoonoo ñëw si gaal yi loolu moo leen dëppoon ñu ne bu kenn dem enquête benn jour la gars yi ñëw enquête si camp beneen jour bi danoo bañ grève de faim lan def grève de la faim keroog laa ko njëkk a def sama àdduna xëy naa suba ndékkiwuma añuma réeruma ñu takk moor si xonq tubaab bi naan lii lan la ñu ne ko ñun suñu réew suñu meree nii la ñuy def billaahi tubaab bi ci lañ jóge waa dug ña fa ñëwoon tubaab bi ne leen ne da ngeen génn camp bi ndax ñun xamuñu lii booy bis bi danaa nekk si ñun di di di sikkar di kii leen waa waa dug waa espagnol yi police léegi na ci la gars yi mer daan ne ñoom léegi daal amul problème léegi ñëpp leen wàññi Sénégal yëpp après ci la ko tubaab yi wax ne ah a wàññeeku léegi nag ci la yeneen nationalité ne commencé dugg ñu commencé dugal ay Gambie ak yeneen nationalité yi consuite noonu la soo ñëwee li tax nga ne ñoom jàmbaar lan boo njëkkee ñëw dañ lay lax est-ce que am nga koo xam ci biir dëkk bi soo ne waa xam naa ko ñu la jox ma numéro téléphone soo leen joxee numéro téléphone koo xam ci biir Espagne dañu woo koo téléphone ne ko diw sàngam ne ngi ñëw na fi est que xam nga ko bu koo ko ne xam naa ko ñu ne ko est-ce que bu ñëwee buñ ko libéré mën ko yor bu kooku ne mën naa ko yor ñu ne ko baax na fekkee kooku tamit nee na mënu ma ko yor tubaab yi ñoom buñ la la Sénégal dañ lay la yóbbu biir Madrid nga jëm wala Barcelone wala foo bind bind fa nga bëgg a jëm am na yeneen centre yu fa def yoo xam nga a lu gën a bëri loolu moo tax man du la mën expliquer lan moo leen war a poussé ndax xëy na ñun daawuñu waxtaan yooyu si biir gaal gi quoi gaal gi bi waxtaan ne daw nan 8 euh, jours nga xam ne génn nañ géej gu danger gi foofu ñu wax jéggi siraat génn nañ ko ba nga xam ne dugg nañ ci géeju Europe bi nga xam ne moom dafa dal foofu daal laa gis gars yi génn nag commencé toog si kaw gaal gi nii di waxtaan comprendre nga di te seen waxtaan yëpp suñu àggee Espagne nii nangam nangam nangam mais lu gën a bëri li leen motivé ak li leen puuse ban ñëw di si gaal yi moom doo ko mën a comprendre comment je pense bi ñu demee nag ba si biir euh, camp ba am na benn bu booy bu ma nekkaloon mu ne mi ngi dëkk c'est bi xotaan pense bi ne dañuy wàññi nit ñi moom mu ne daal mom suñ ko wàññee jar na ko xaru man ko lu xew mo ne mom dafa ben poulailler poulailler bu mu yorox mo ma poulailler poulailler poulailler jàmbur moom la jaay ginaar yi ñëw xam nga koku am na lu mu def da nga dégg ño xam do wax seen yaay ti mo leen jox xaaliss comprendre ñew nga dégg ñu na noo teggi teg mais pour nga xam dëgg-dëgg lan mo leen motiver do ko mën xam ndax soko ko comme ça man man dom duma la wax man lan mo ma motivé xam nga lan moo ma yóbboon man gal ci Espagne sama moram ya dem man lo rek moo ma yóbbu de damaa toog fii ànd ak samay samay di jaay ba yag gisuma leen ma 3 jours ba 4ème jour ma laajte ñu né gaay duggu dugg nañ ci gaal gi dem na mané ha ah, ñu né waaw man 5ème jour ma gënen gaal dem ma duggu ci ñu bari nimit lool mo leen poussé lu question problème la nga dëkk ak nit mu duggu ci gaal yi dem espagne mu réussir seen koñ dara nga dégg gaal guy dem nga dina dem ak ah, ki dal fi mëna jaar mën na fa jaar ba dem ma ngi lay nuyu di la siyaare bëggoon wax ben espoir bu ndaw rek bo xamanteni ni nii eh, dama dund ko man mais wax dëgg yàlla xaw naa def eh, ay at mais ba léegi dafa des sama sama bopp daal dafa def sama bop dama koy xalaat te yit ndax man xamna naa ne bàkkaar ci ndax bakar bobu ci la bok wala bokuma ci ndax ñako def ci sama wat lañ nek te yit sama bakkan laa sewé ndax boba xañ la laa doon xalé lol mi nga amone 2006 ma duggon ci gali jëm Espagne léegi bima duggé ci gali jëm Espagne Eh, maa ngi dugg bisu jeudi du ma wax fi ma duggee waaye daal jeudi la dépare Sénégal aksi ba jeudi bi delsee lañ dugg son Espagne marine bi ñëw jël siñ mais li xew ci yoon bi yëpp dafa dafa dafa bari ak bi ma àggee tamit histoire yi ma fekk ci camp bi ma nekkoon ndax bi ma duggee ci gaal ñu daw premier jour bi man affaire daf maa def tiituma def ma dara ma dafa maa def ay ree daal fi ma toog may man daal affaire bi daal man li ma def xaw ma doon ma toog rek gaal bi daw nit ñi wàccu di wàccu ñii di jooy ndax xam nga rek waaw biñ dawee jeudi vendredi samedi ba dimas ci guddi nag moom mooy bis bi gën a métti nag moom ci bisi dimanche bi am gaa yu nekkoon sama fi ma toog ñu jóg di waxtu man li ma ci jot a dégg maa ngi dégg kenn ki naan seral gaal gi seral gaal gi xaw ma fan di tudd benn dëkk maa ngi fàtte dëkk bi mais mu naan na seral gaal gi dëkk sàngam léegi bi mu waxtoo noonu ma ne waa fii daa am daa am ko doon waxtu muy dimanche di ci guddi mu commencé waat di waxtu waat e, bin xëyee gaa yi daal ni fii am na ñu fi doon waxtu waaw ku fi waxtuwaat nag dana nangam taan ndayam na ma yàlla jégal ci saaga bi ci géej gi muy lënde lënde mardi waa ji jógaat di waxtu gaa yi jàpp ko yeew ko kenn la moo doon waxtu ñu jàpp ko yeew ko ci gaal gi mardi mercredi mercredi affaire gën a taraat gaa yi nag ni dañ koy sóob ci géej gi ñi doon xam ñoo yoroon géej gi ñoo yoroon gaal gi di capitaine ñu ne dañ koy sóob ci géej gi léegi bi ne dañ koy soob ci géej gi ñu takk ko di wax ji seen biir ni dañ koy sóob wala luñ ko sóob wax ji commencé ndax waa ji tàggoon ak sagoom tàggoon ak sagom ba daal mel lu jëfar daal wax lu ne laal la doon wax waaw am na ñeneen tamit ñu doon waxtu ci biir léegi bi ñu waxtu gaa yi takk ko géej gi naqari nag ñu xëy. géej gi daal mel ni tey jii moom dañuy gaal gi moom faw mu këpp ko di def façon boo xam te ni doy war di yëkkati gaal gi ba kaw di ko dóor bu dalee da nga naan gaal gi moom xar na benn yoon gaa yi daan géej gi nag bu ngeen soobul nii ñun ñëpp a dañuy dee gaa yi takk waa ji bi ko takkee daan ne ak keneen ku mu àndaloon benn mbokkam boo xam moom tam da doon waxtu léeg-léeg ñuy ñaar ñoo doon waxtu ñu ànd mais ñoom ci xam naa xamante nan ñoom juróomi juróomi nit lan ñoo bokkoon benn groupe buñ toog moo tax képp kuy demati ci mbooloo na bàyyi di beddeeku mbooloo foo leen fekk boo mënu ànd seen biir bul beddeeku benn côté parce que lu boo moytu rek man dama cay jàng lu bari parce que xam naa ne beddiku boobu bokk na ci li tax ñu def leen loolu gars yi biñ ko takkee boole ko benn genre lugot bu diis mais biñ koy dugal ñu tëmbal ko ci géej gi takkaat keneen tëmbal ci géej gi mu des ñett ñu ne ñett ñi tamit ñoom ñoom ñoo ànd buñ leen buñ leen tëmbal ñoom tamit noonu la ñuy def wala buñ buñ wàccee dañuy yoole ñett ñi xam seen yoon newu ci ñu takk leen ki nu mujj tàbbal biñ ci géej gi biñ koy tàbbal ci géej gi mi ngi di jooy naan ni man maa jàpp gaal gi ma bàyyi ko affaire bi metti ma sama xol te te ku wax dañ la ciy boole ku wax dañ la ciy boole tamit foofu faaw nag ak lu metti métti métti faaw nga muñ donte soqal bi àndu ci tànn metti na gaa takk leen muy juróomi nit ñu soob leen ñu soob leen ñu soob leen ci géej gi mu ma xam naa ni ñooñu ay wa ay ay saalum daal lañ dëkk ay ay saalum lañ dëkk sa booru saalum daal lañ dëkk parce que ñoom seen absent wax bi saalum saalum la muy juróomi nit 2006 noonu lañ leen takkee dugal leen ci ndox mi li ma ci xaw a jaaxal nag mooy. biñ leen tàbbalee ci ndox mi rek ñu daw benn tuuti rek géej gi dañu tekk man daal loolu mu xaw maa jaxal daal xaw ma nag xam naa géej gi daa waroon a dal dal wala nit ñi ci dugal ñoo tax ñu dal ma daal affaire bi jaaxal na ma daal géej gi nag daal di dal dal defatul benn bàgg gaal gi daw dañoo dawaat une heure de deux heures de temps benn abion naaw tiim ñu benn avion naaw tiim ñu bi avion bi naawee tiim ñu. ñu dawaat ba ngoon ci la marine bi tase ñun daan ñuy jël mais avant ñuy marine bi jël am na nag beneen cas bu ci amaat ci biiraat ndax am benn guddi boo xamante ne dafa am benn waay boo xamante ni da doon waxtu di waxtu di lu ne mu koy wax daal waaw léegi bi xëyee na capitaine bi yow yow moom gis nga boo fi waxtuwaatee ci géej gi lañ lay soob fekk sooboon nañ ñële ba pare ñun ko dañ lay soob ci géej gi léegi muy jooy naan capitaine bi yow sama papa xuma sama nijaay moo ma indi ba ci yow boole ma ak yow nga naa ma dëmm nga di ko jooy man eh, am benn waay bu ne daan kii kii bàyyi leen kii dafa dafa tiit rek affaire yooyu léegi mais li ma ci gën a jaaxal mooy ni mu doon waxtoo mais biñ àggee ci camp bi ban bàyyi ko ba mu def ay une semaine yooyu deux semaine dafa kun la woon kii moo doon waxtu da nga naan déedéet kon affaire yi xam naa ay rab ci la bokk wala tiit ci lay bokk man daal affaire bi jaaxal na man mii tamit am na benn guddi boo xam ne damaa tàggoog sama sago mel ni dama nekk eh, dakaar di di yéeg ci ci ci suppeer yi ak di wàcc am man daal affaire bi action bi mun ma koo fàttaliku mais xam naa ne man bi jour boobu man bu man tamit mënoon naa def lu raw loolu parce que sama dama mujj gaal gi xaaju guddi gaal gi géej gi di ko def noo xam ngelaw li di ko guddi googu moom ku ni moon da nga mucc moom moom dama naan lay déedéet guddi googu. yalla ñu sutural, waye dal xamna ni ñi ci joy bari na léeg nga gis ndaysan ku joy affaire dal daal gaal yi doy na waar maa ngi ñaan suñu sénégalais yi nanu muñ ta yi metti na gaal yi ñi dugg metti na waaw kep ku la waxul metti na dalay nax man minak nak 2006 la ci jaar yalla ma def sutura buma defé euh une semaine jeudi bima déparé bimu a mu lañ lañ teer ah maram yi jël suñu waye nak li xew ci yoon bi doy na benn affaire bi ci am mooy eh, bi ma àggee ba ci camp bi su ma nekkoon dama faa fekk ndeysaan benn soose ndeysaan muy jooy di jooy fekk dañ daan gisante eh, munuma dafa am loo xam te ni dafa xew ci bi may ñëw ci yoon bi ndax sama benn xarit boo xamante ni nee benn xaritam boo xamante ni ñoom ñaar ñoo ànd dipp xale seen yaay yi saa su ne dañ leen wax naa yéen ñaar ñii di leen wax daal xam naan daal ay xarit lañ woon yi benn bakkan donte xaw ma ay mbokk lañ xaw ma duñ ay mais en tout cas daal nee na ñoo daan ànd seen ngone luñ mës a def ñoo ko defandoo ban ni ñu duggee ci gaali ñoo ànd dugg ci gaal yi léegi bi ñu àndee dugg ci gaal yi na benn guddi xaritam bi di waxtu di waxtu après gars yi ñu ni ko boo fi waxtuwaatee danañ la tàbbal ci géej gi nee na ñu xëyaat bët set gisul xaritam boobu noonu. nee na mu xam ni gars yi dañ koo tàbbal ci géej gi ci guddi gi léegi bi mu ñu agsee ci camp bi yaay kooku noonu woo ko di ko wax ne ko ko ana diw magam bu jigéen bi dafa gaañu magam bu jigéen bi ñu fi bàyyi woon daa gaañu léegi te moom tamit mun leen a wax ni leen waa ji gaañu na moom tamit mun leen a wax ni man gisuma ko ndax dugal nañ ko ci géej gi léegi muy jooy loolu façon jooy boo xam ni di laaj lan lan lan la war a lañ lan la war a def ñu naan ko wax ko ko léegi ni leen ni leen moom tamit gaañu ñu ñu jooyandoo leen benn jour moo gën ngeen bàyyi ban saraxal kee ba pare nga leen di woon na leen naa leen gaañu na gaal yi ndoy baan ndoy baan gaal yi doy na waar doy na waar doy na waaw sutura rek xëñ na nag ku yàlla wax ni doo ci dee doo ci dee waaw waaye gaal yi ci xam ci li suux ci géej ci ay gaal yu kenn xamut. moo ëpp fuuf li yi xam parce que man nag lii ma lay wax moom day doon loo xam ne dama koo xam ndax dama cee jaar 2006 laa fi duggoon yàlla def na sutura nag ah eh, léegi wax dëgg yàlla ñëw nañu xaw naa metti nag ñu ñëw fi dund ay coono yu metti nag waaw ndax fekk si woon mu metti ñu dund coono yu nekk waaye yàlla def na sutura léegi am nañu kayit wax dëgg yàlla ñëw nañ Sénégal ba ñibbisiwaat mais daal réew mi tamit na meloon ak ni mu mel léegi bokkul. na meloon na meloon ak léegi bokkul gars yi buñ jàpp ni mukk dafa yomb waaw buñ jàpp ni mukk affaire yi dafa yomb dangay ñëw rek am xaalis nu mu la neexee e, liggéey bi léegi métti na coono yi bari na daal te dooto am vie de famille ah mun nga wax ni yow tey bi nga jëlee tukki ak léegi bu dee quinze ans boo waññee li nga ci nekk ak sa njaboot ci biir quinze ans yi. matul matul matul matul matul ñaari at matul matul vingt quatre mois xam nga loolu métti na. léegi parmi vingt vingt six yooyu dee woon ci euh, wetu Kébémer gis nga li nit ñi wax naan liggéey amul nangam amul pauvreté yu ci bari dañuy wax rek waaw ndaxte am na ci ñooñu ku dee ko xam ni amoon na biisu soixante places boo xam ne moo daan def horaire fii ak ku xewle ci boori Kébémer. bu amé dëj moy jël population ba di leen yobbu ñu koy fay ak yeneen bien yu mu amoon te ci mbënd moom la dee ci benn sis yooyu ñu ci bari dañuy bëgg a dem dem te xamuñu li xam dégg nga nañu bàyyi wax naan région avec pauvreté di encourager nit ñi dégg nga bu ñuy wax deuil national deuil national baax na mais su fekkee dafa am catastrophe naturelle ah am fu tàkk wala nit ñu lakkale wala xam ne yàlla moo leen natt ci loolu wala nangam wala ñu doon dem di xare ji pour seen ki mais ñoo xam ne yow da ngay dem presque pour xare ji mbënd mi ñoo xam ne dañu am lu leen di ko fi bàyyi dajale ay millions di ko fayee ay nit di dem Europe nañ wax nit ñi dëgg nit ñi nañ am jom ki yonent bi daana toog cin du tàkk ak yeneen ak yeneen te dañoo fekk fañ ba yàlla jox leen lim leen di jox nit ñi dañuy góorgóorlu ah nañ góorgóorlu waaye jërëjëf ñu ngi leen di encouragé bu baax seen émission yooyu. gis nga yëf yi li ci rax dafa bari dañ ci dugal ay politique politicienne ay nangam ñi nekk fee duñu wax nit ñi dëgg dañuy wax rek pour seet nu ñu compromettre ñi jiite réew mi wala yooyu responsabilité yi kenn du ni danañ bàyyi ñi jiite réew mi ñu ñu ñu ñu ñu rëcc ci ñépp a ko bokk mais ñoom itam ñiy wax aussi nañ wax ni gouvernement bi ñu ngi jéem. bari nañ fi ay centre de formation yu ñu ubbi ay institut de formation yu bëree bari léegi ndax dañoo xam ni ndaw yi il faut ñu am métier pour mën a liggéey enseignement général moo fi bari woon lool léegi ñu ngi koy corriger ñu ngi fiy def ay yeneen yoo xam ne aussi nit ma nañ faa liggéey mais am na ñoo xam ni dañuy dem bitim réew di fa jaay ay gerte xott ci mbedd mi man gis naa dem naa Italie dem naa feneen gis naa ñuy yalwaan am ñu ma ci xam ñu ni tonton bu ñu bu ñu bu ñu ci feeñ de dimbali ñu rek loolu ñuy defi foofu mën nañ koo def fii li ñuy bañ fii la ñuy defi fële fii man mii man mii du ma wax sama tur nekk naa fi directeur général lu ne nekk naa fi fu nekk kii mais am na période bu moo frotté woon damaa dem ci Kajoor di jëndi sànqal dem Mbuur di jëndi yéet ak géej di ko ñëw di ko paquet di ko jaay ci supermarché di jaay leneen mos naa fi am frottement boo xam ni dama gis ci soleil booba temps soleil benn benn annonce bu ñu def di jaay benn frigo vingt cinq mille ma dem jënd ko booba dem teg ko ci benn salle bu ma daan defee karaté def ci sama boisson ku ku def ba ñàq dem jënd naan bu ma wàccee jël sama recette li ma ci soxla dox sama soxla ci des ma yóbbu ko sama kër noonu nit ñi dañoo dañoo wanewul jom ku nekk am na loo fi liggéey ñax maa ngi ci àll bi tool yaa ngi ci àll bi mbay maa ngi fi naat léegi loo bay yàlla loo dugal ci suuf yàlla boo ko wóoloo mu delloo la lu tool wala lu ko ëpp dégg nga dañoo war a jéem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom toog na fi ay ay temps cin du toog tàkk këram te bu ko neexoon montagne yi yëpp soppali ko or te defu ko dafa muñ ah ak ñeneen ak ñeneen mën nañ la wax ñu bari suñ tuubaa gi nga xam fa la suñ yaakaar ne am na jamono yoo xam ni xëy na dañ toog cin du tàkk ay muñ ak di liggéey ak di jaamu yàlla ba yàlla fekk leen fa fi mu ne alhamdulilah na nit ñu góor góorgóorlu te mu ñu wax kii gis nga ñuy dem ñëpp du ñu pauvre de ka dajale ba am 3 millions di ko fayee visa di ko fayee leneen bu ko demoon fee ubbi ci benn commerce wala di ci jaay légume di dem ci ñaay bi jën légume indi di ko livrer commerce yeeg hôtel yi dana am xaalis ñeneen ñiy jaay leneen def noonu ñeneen ñi nga jën say filet 3 millions boo jëndee filet dem fële di ci kii napp ak leneen ak leneen ak dama laa wax rek ay domaine bari na yoo xam ne boo amee 1 million mbaa 2 mën ngaa dem. man ngaa dem ñit ñi am na gis naa koo xam ne ci ñu mu suñu gox bële rek vingt six personnes yi nga xam ne dañoo dañoo des ci ci ci mbën ci kii bi ci clandestine bi ñooñu am na ci koo xam ne am na biisu soixante places muy daw diggante Kébémer ak dakaar ak yére di ay horaire ak ku fa am dëj wala xew mboola may dem moo leen transforme dem na dee na ci mbënd mi est dafa pauvre ak ñeneen ak ñeneen am na ñeneen ñu mel ñoo xam ne dañoo dajale xaalis yu dul jeex ki lu mat defe ngaa ne vingt six ndaw dee ci benn benn dëkk xam loolu metti na ñooñu seen xaalis boobu bu ñu ko dajale woon def ko benn tool bu ñu bokk di ko bay di ko kii danañ danañu réussir wala ñu def ko leneen nañu bàyyi di naqale yi naan leen nangam ak nangam mbé gis naa France ak Espagne ak yooyu yëpp ñu xam dañuy taxawaalu man mii damay yëngut ci ay wàllu ñaan am na ñu may ñaan rek pour nu ñu amee ba ñibbisi lu ñu amee paas ñibbisi demeewul noonu foofa de bu leen na xale yi nañ góorgóorlu fii liggéey waaw te góoba gouvernement bi itam def benn kii boo xam ne day dajale ndaw yi xool nu mu waxtaan ak ñoom wut beneen pexe def nay pexe gaa mais na dolli ndax yëpp njabootam la mais affaire deuil national moom nañ ko teg fee ndax deuil national boo amee catastrophe nationale boo xam ni ab dëkk bu tàkk wala ay pêcheurs yu lab yoo xam dañu doon liggéey ba lab wala bâtiment bu daanu ci ay nit ay nangam ak ki nangam wala ñu attaque fenn nangam yu mel noonu mais ñoo xam ne xam nañ lii ñuy dem daanaka comme xaru la loolu mais bu ñu ay nit ñu wax deuil national ku ne nag metti na la ndax ku nekk am nga ci mbokk ñun ñi am nañ ci mbokk metti nañu lool waaye boo demee itam léeg-léeg da ngay sikk famille yi mbaa nga sikk gone yi mbaa nga am ñeneen ñoo sikk ñëpp la ñu war a sikk ñu sikkante suñu biir mais ñañ régler problème bi du pauvreté moo leen yóbbu nañ bàyyi di dal ci gouvernement di dal Sénégal Sénégal jàmm fi nekk ñoo ñuy dem ñëpp ku ne am nga portable deux cent cinquante mille wala cinq cent mille wala nangam boo xam ne yaa ngi koy yor ak leneen ak leneen ak yeneen nit ñi du question pauvreté dañoo bëgg a dem xaw ma lan la ñu gis fële ak lan lañ leen di wax fële nañu teelu te xoolaat seen bopp bu baax waaw affaire bi du noonu maa ngi ñaanal nag maa ngi jaale ñi ci ñàkkal li ñëpp ak ñi ci ñàkk ñàkk seeni doom wala seeni mbokk du ko jaale Sénégal gépp di di ñaan nag yàlla na fi lii jóg te ñu jóg ci nag nañ ci waxtaan nii ngeen di def bu ngeen ko bàyyiwul dana baax mais ku ngeen invité mu leen di encourage yooyu parce que politique politique bay bu ngeen dagg ko bu leen nangu yooyu dee leen sélectionné ñi ñi ñuy wax daal loo xam ne dana defar ba lii jóg fi na fi jóg man nag am naa ci xalaat bind naa ko danaa ko yónnee kii ma ko war a yónnee ci ci ci réew mi pour que ñoom itam ku nekk def ci bay sawaar maa ngi leen di gërëm nag yéen yàlla na ngeen nekk ci jàmm yàlla jàpp leen def leen tawfeex ak taysiir te yàlla yokk leen nag ba ngeen yëg ko ndax yéen a ngi liggéeyal réew mi nii la ñuy liggéey réew mi di xool fii fii rëq-rëq ne ngay indi solution yi te bañ ko wékk ci Masamba ak demba nañ ko analyser euh, analyse bu limpide bu responsable bañ ci indi ay politique politicienne ak ay parparloo jaa ngeen jëf jazakumullahu xayran jazakumullahu xayran jazakumullahu xayran